impôt bi ñu ko benn million rek moo ci fay impôt loole nag li mu mën a indi ci Sénégal mooy ay jafe-jafe yoo xam ne maanaam ay gàllankoor la ñu mën a jural ma ngi ci journal bi waaye nag bu passé li nga xam ne mooy ñakk a fay impôt gi bëri na tamit ñoo xam ne dañu leen di defal li nga xam ne mooy exonération fiscale loole tamit baaxul ci réew mi te nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum impôt maanaam bu ñu ko fayul loole mën na ñoo ay jafe-jafe sax ci lu jëm ci wàllum tabax ay ak lu jëm ci wàllum bërëbu fajukaay wàllum fay impôt ci sénégalais yi nga xam ne ñoo ko war a faye loolee sax moo nekk combat bu yees boo xam ne Ousmane Sonko ko daan na koy sumb fële nga xam ne mooy sa diwaanu Ziguinchor ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien directeur général des impôts et domaines di Bassirou Samba Niass ci nag lël bi nga xam ne doon nañu ko amale ngir nag waxtaane fa lépp loo xam ne maanaam jëm na ci nan la ñuy dajalee lu jëm ci wàllum ressources fiscales yi daan nay wax ne ci Sénégal bëri na ñoo xam ne du ñu fay impôt waaye nag jamono ji teg nañu si programme boo xam ne bëgg nañu see def ay jéego Birahim na fa lu jëm ci wàllu marché gré à gré yi nga xam war nañoo xool ni nga xam ne moom la ñuy joxe waata marché yi wax na tamit ci lu secteur bi ak gaz bi nga xam ne dañu leen a génne ci lu jëm ci wàllum procédure marché public yéene kaay gi du l'observateur las enquête réew mi quotidien daal di xëy wax ci budget bi ci lu bi bi maanaam wàllum ci ci wérgu yaram gi ak wàllum équité sociale la ñu koy jagle la njiitu réew mi di Macky Sall nee na atum 2023 bi maanaam année sociale la yéen a kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ca njuuma ñoom nag mer nañu ba mara détail yi dañu doon manifester nee nañu hôpital bu fonctionnel la ñu bëgg hôpital buy dox a fine yéen a kaay gi di source xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko waaye na bu baax a baax mairie bu Sigi Cora ndax nag raxas na ko lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ñoo ay agent lañ woon ca ba génn nañu leen fa ma ne la xaaj ba la ñu fa génne ndax ñenn ñi dañoo jàpp anam ba nga xam ne moom la ñu fa nekk jaarul yoon ak ñenn ñoo xam ne ñoo ngi leen di fay xaalisu mairie ba yéene kaay gii la Soleil ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale me nee na lu jëm ci wàllum quantum horaire bi nañu ko daal di fexe ba respecté ko waaye nag jiital saa su nekk lu jëm ci wàllum waxtaan wàllum dialogue social Macky Sall tamit nee na lu jëm ci wàllum formation bi nañu ko gën a jëmmal yokk qualité système éducatif bi yéene gi di direct news xëy ñu yóbbu ñu ca diwaanu Mbour te diwaanu Mbour te lu toll ci fanweer ak juróom benn école yoo xam ne amuñu toilette am na fa tamit lu toll si ñeen fukk ak ñett ci école yoo xam ne amuñu robinet waaye tamit ca lu toll si juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci école yoo xam ne ay mbaar la yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na bëri na école ci biir réew mi jamono ji dafa fees dellu ko ndox ubbi tey jàng tay loole munta nekk te nag tey jii si alxames ji la élèves yi dem ci école bi ndax ci dakaar ak ci Matam ak ci Ziguinchor bëri na fa école yoo xam ne maa nga fa ba maara détaillé yéene kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu organisation mondiale la santé di OMS daan na alerté ndax nee na am na benn produit médical boo xam ne ab siro la dañu ko jox ay xale ci diwaanu Gambie te jàpp nañu ne lu toll si juróom benn fukk ak juróom benn ci xale yoo xam ne bi ñu naanee produit médical boobu maanaam dañoo génn duna dañoo faatu dañoo décédé journal bi nag nee na loolee moo tax waa OMS nag di alerté ndax produit médical boobe na du Gambie rek la ñu ko yóbbu am na yeneen réew yoo xam ne yóbbu nañu ko fa te ñi nga xam ne ñoo ko jota naan ci diwaanu Gambie am na si juróom benn fukk juróom benn xale yoo xam ne faatu nañoo ab siro la yéene Les Échos nee na atteeb activiste journaliste bi di Californie ak Adja Thiaré tey ji la waaye nag xale bu jigéen bi gëmuñu ne dana ñëw ca tribunal ba ndax ba léegi dafa feebar yéene kaay gi de Libération nee ne Californie ba léegi génnagul ci mball ge ndax avocat xale bu jigéen bi ñoom nag déposé nañu ab plainte ca table doyen des juges lu jëm ci wàllum viol ak wàllum séquestration ndax xale jigéen bi nee na Californie Sall dafa jël loxoom dugal ko ci kanamam yéene kaay gi di enquête xam ne ñoo ngi ci TikTok bi teg nañu leen loxo ba jël leen sa kaso ba njëkk maanaam jaaga moome nag yóbbu na ñaar ñoo xam ne ay tiktokeur lañu fa mbaxana doone benn ba ñu jël leen yóbbu leen sa kaso ba kenn ki liw faremaane la tudd kenn ki prince Jackson ndax ñaar ñi dañu doon saaga njabootu coon sekk gi di saaga wali sekk di saaga jaaga loole moo tax jaaga yóbbu leen fa mbaxana doone benn yóbbu nañ leen sa kaso ba kenn ki bi ko laajee nee na li nga xam ne moo ko metti maanaam dafa bëgg wali wër na ko ba sonn bëgg dajee ak moom munu koo gisa loole moo tax maanaam mu nekk ci bi di saaga ak njabootama waaye dudd ko dooleeti yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk